taala wa barakaatu mooy ñoo ngi nuyu mbokk taalibe bi yëpp di nuyu jullit yëpp di nuyu réew mi yëpp eh, di leen yëgal ne incha allah suba ci kattanu yàlla ak mbaaxam danañ waxtaane Cheikh Ibra mu Babou Mouridina ci TFM ci émission quartier général kon maa ngi jox rendez-vous ñi ci bitim réew ñi ci biir réew mi mbokki taalibe yëpp góor ñi mag ñi jigéen ñi yëpp maa ngi leen di jox rendez-vous suba incha allah ci TFM 22h bu soobee yàlla jërëjëf.